hors si Ormagila. Mais parfois aussi, il faut qu'on se dise les choses. Je l'ai dit tout à l'heure sur le plateau, il faut que, que, l'on sache que Maïmouna aurait pu passer. Maïmouna Boudéon, l'Union Def. Il faut qu'on se dise les choses. Mais, bala may téye kàddu gi dama bëgg rek lancer ben appel bo xamante ni ngi koy jëmale ci homme politique yi nga xamante ñom ñoo séq réew mi parce que bu len fatané bu leen fàtte ne ñun journaliste li tax li tax ñu ñuy song li tax ñu ñuy menacé li tax ñu ñuy xuppa c'est parce que am na kattan gu ñu yàlla may wala kattan gu mu ñu dénk bi tax ñu ñuy oowee quatrième pouvoir mooy lan mooy dañuy forger yu opinion mais doyen yaa ngi nii toog ak doyen yi xam nañu ne ni ñuy forger opinion dafa war a méngoo li nga xamanteni moy taxi texte régir métier mi ni ngay opinion si outil yi nga euh, sur des éléments objectifs pour informer juste et vrai pour que nit ñi ku opinion. mais lu am solo il faut ñu sañ ko wax homme politique yi dañ journalistes ndax gënu leen ñoo bëgg réew mi gënu leen ñoo bokk gën a bokk ci réew mi te tamit gënu leen ñoo yay ci réew mi nous ne sont pas là pour nekk ay faire valoir li nga xamante ni moo ñu yitteel c'est l'intérêt général maintenant li ñu leen di ñaan en tant que homme politique mooy ku nekk na nga waxtaan ak say militants homme politique kilifa la donc kilifa. duma len ko jangal parce que suma gisse gisee Mamadou Diop croix tok ak euh, grand yeb ñom ba euh, le ministre ali ndoy doyen Cissé yeen ñep yeen ngi taxaw donc damay sañ limay wax parce que xamna ni lolu mu ngi si yeen homme politique kilifa la te kilifa dafa am nama waxe amna am xamanteni kilifa bu fekkente dafa am mbolo bu nek ci ginnaawam mu taxaw xarab ab journaliste menacer ab journaliste saga ab journaliste bu ko waxé ak il vient de donner un mot d'ordre d'agression d'intimidation donc politiciens yi bu fekkente ni nii de def ay école de parti di jàngal seeni militant citoyenneté nañu bàyyi au moins toog ci télé bi wala ci radio. bi di joxogn ab media wala di joxogn ab journaliste ken mënul la fexé fexé fexé ba li nga xamanteni ni ciaytu nañu ko gis né mo gën si askanu duñu ko wax parce que tam nañu ñu tàcc ñu le matin saga ñu le soir man nak sa deug deug deug amul ben militant ak fo mën far bo xamanteni dina dina am xarma yalla ci yow parce que dang ma saga mo yon nekusi dang ma saga parce que da nga far buñ la yoron do saga sa problème yow la ak yow donc mëno ma saga saga ba téré ma wax li ma war wax mëno ma xuppa xuppa xuppa ba téré ma wax li ma bëgg wax ndax li ma bëgg wax dama kay wax sama digënté sama sama akulay tala sama ak yalla wax na ko sank ci télé bi ñi nga xamanteni ñoma jangal man khalifa jaxate ak ñi nga xamanteni man ma leen jangal ñu nga yewoo ci réew mi am lo xamanteni jombana ka jomb te ñu ci bari

man sama wàllu bopp damay jóg ne dama koy soutenir sur le principe soutien de principe léegi nag ce volet principiel la moo tax yenn saa yi aussi euh, ñuy bàyyi nit ñi ñuy def lu ñu war la def parce que ab journaliste aussi day déconné ñun ne ñun dañ ko war a jàppale dañ kaa jàppale mais bu ñu tëjoo moom si ñu nekk saway li nga def waroo ko def ku nekk nag nañu la yare sa sa kër noonu ngaa liggéeyee